jëf mbokki réew mi mbokki internet yi bàyyi xel MPROD TV yi mbokki tey soxna ayda euh, mer la fanaanoo nee na ma petaaw gis naa ñu koy fowee dinaa ko laaj kan mooy fowee petaaw tey danañ waxtaanee njariñ danañ waxtaanee li xew ci dëkk bi mais lii moom moo wax ci projet Ousmane Sonko bi tamit dalul sama xel ku ne xam na ne Sonko dañ koy waaj woo mais li ma dégg sànq wax dëgg yàlla tiital na ma danañ waxtaan ci mbirum euh, Kaliphone ak ndaw sa fu ñu mujjee Kali dañ koy tëj wala day génn Sadio maane mbokk yi euh, dugalaat na euh, démb Sadio li nekkoon ci moom dañ na wala dañagul ndax soxna Aida am na lu ma waxoon jamono jee ca carrière Sadio maane kii di Idrissa Gana Gueye tamit am na lu ñu ci war a dugg war ko cee leeral ndax ku ne gis na ne milieu bi doxatul carrément mais balaa boobu dañuy bàyyi soxna Aida la grande voyante mu nuyoog askan wi ñu soog a xuus dugg ci dëgg-dëggi waxtaan wi soxna si ñoo ngi lay ziare. maa ngi leen di delloo ziar di nuyu ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp yàlla. di ñaanal sëriñ Mountakha yàlla na fi yàgg te waaye di ñaanal tijaani xaadiri laayeen gàmm gi nga xam ne gàmmuk Seydouna Mouhamed la na ko ñëpp taxaw defee ko nanu ko daan defee oto yi daw ndànk muy Kaolack ñaseeni sama mbokku taalibe cheikh yi sama mbokku laayeeni murit saadix yi nga xam ne moom sama yëfi bopp yi nga xam ne bu màggal gi ñëwee màggal ña ngi koy noppee ca kasara jàpp ñoom kasara jàpp la ñuy pare màggal màggal ñu ne ci gàmm kon fi ne ñoon gàmm gi moom pare na hmm. waaj nañ ko waaj bu mucc ayib hmm. takk jóg rek a des waaw ah, soxna Aida tey ñu waxtaanee njariñ waxtaanee li nga xamante ni mooy lama dëkk bi bokk na ci mbirum pettaaw bokk na ci mbirum seet dégg naa xeeti seet yëpp seetu pettaaw moo ci gën a garaaw pettaaw laa dégg ñu ne lu mu la tegtal loole la lu mu la wax loolu la pettaaw moo mën a gis ba gis nit ki ban bi sax la war a faatu soo raay da nga jël pettaaw def ko sa yëf nga jël pettaaw def ko muy sa wéttal nga ne ma laata pettaaw xottu gerte ci laa njëkk a tojee Sénégal ca ba may gën a nekk tout tànk seet am na loolu ci yàlla may bëgg naa ñu leeral ko askan wi. alaaji dégg. seet yi am dafa bari de. waaye li seet mën a génne. mais seet dañ ko bëgg a fawee. dégg seet ñu ngi koy loo làmbee. Ah. seet ñu ngi koy def affaire boo xam ne xamatul léegi seet gi dañ koo bëgg a fay taman duma ko nangu. kenn du ko alanduti déedéet seet gi. kenn du ko tigadege kenn du ko sulu xumbalax lii sunu yëfa sunu yëfi kër maam la ba nu koy def ay tuut lan ñu démarré ci xoltu gerte huit ans laa tombale di seet ñama doon seetal tey ñoo fi nekk lu ne ci réew mi alaaji dégg seet boo tàllalee sa loxo soxna Ayda wax la sa vie soxna Ayda boo tegee ndox mi mu wax la say mbir yaa na saraani say mbir ak nit ñi nga bokkalul xeet say nit ak sa carrière fan la jëm ak lan nga nar a jógtee ak fi nga nar a àgg boo ca àggee lan mooy galgal yeeg ndog-ndog yi ba bés bu ne cëpp nga yëg ni sax sa bët a ngi raf yow xam nga sarax bi nga war a génn après avenir tàmbali avenir fin de avenir la sama seddi di la wan uh-huh. mën naa laa wax dégg man maa lay seetal ba nga ni ma doy na soxna Aida foo xamee sama yaay soxna de foo xamee sama papa soxna Aida ku la wax li xew suñu kër man noonu laay seete damay dugg damay dugg ci maison bi travailler maison bi wax la fi ngay tëdd nan la mel ban côté ngay féetale sa bopp mhm. li nga gént biig li nga gis biig lii lañ lay wax seet dafa war a localiser nit nit bu jànnaxee ba ñëw ci yow ne la seetal ma mhm. dégg loo koy laajee luy sa soxla. luy sa problème. daa mel ni naqar bu du xel ñaar lem-lem jokk jokkale loolu mooy lan. seetal ko nga wax ko ay vérité yoo xam ne moom dootul namm bu jógee ci yow li nekkoon ci yaramam doon bopp bu jaxasoo da koy ubbi. man sama seet moo tudd du taal leen làmp yi leeral leen mu leer nañ man damay leeral dama lay leeralal ba mu leer yow mi jënd jënd xi woon yow dootoo am lu la lëj nit ki bu jaaxlee ñëw coow da nga ko war a gindi. mais di ko làkki daadaak di ko joxe explication di ko woo ci ay waxtaan ak di ko woo ci yenn explication loolu du seet seet gi bu nu ko fawee gis nga dégg benn petaaw bi lépp fu mu aw yoon la benn pettaaw bi euh, day lëndëmal loo xam ne tey yow mi mënut mën na laa jox sarax bu lor doomu aadama ba faw kon seetkat yi ñu ngi lor doomu aadama yi kon ci lu leer. dégg yenn saa yi sax nga gis ku jëkkëram takk takk ñaareel. mu dem seetlu. ñu saraxeloo ko sarax boo xam ni moom place ba ko jëkkëram tegoon dootu ko fa teg. moom day perte place oh. te fekk moo nekkoon au topp waaye da ngay perte sa place te seetkata la ko yóbbee. seet gi ñu ngi koy loolu làmbe gis nga waxi kese bu taxee nga dugg ci nit ci seet te xooloo kiy seetlu demoo vaar xool li mu liggéey ci réew mi xooloo li mu wax ci réew mi xooloo fi mu teg ay waxam yéen saa dégg communication yoo xam si da ngay xam ni kii du seetkat daa dem ci marché ba rek jëndi ay pettaawam mbaa xam nga ni dégg pettaaw dañ koy nandal ah. pettaaw dañ koy nandal pettaaw dañ koy karabak waaw pettaaw bala nga ciy liggéey mu lay jox li ngay laaj danga koy jox li mu moom mbaa xam nga ni pettaaw di nga ko dugal foo xam ne moom ci boppam day ko ci benn place chargé wu ba fees nga ni ñuy chargé téléphone. ni ngay chargé petaaw. petaaw day tollu moment boo xam ne loo ko laaj du la ci tontu. petaaw day mer petaaw day dikkale petaaw day soppi jikko petaaw lépp lay def boppam moom parce que dafa mat boppam. baa xam nga ne ndox mën nga ciy seetal nit ku weex ba mu jox la nit ku ñuul te doo ko yëg. dégg am na koo xam ne rawaanam day day tëgg la te rawaanam di tëgg bu ko pettaaw yi mën ta fecc bu yeboo mu bakku yenn saa nga seetal nit ci ndox mu teg la jëmmi ndaw ndox mi tegal la jëmmi doomi aadama ji tegal la jëmmi li nga xam ne bu dee feebar la da koy seppi mbaa xam nga ni man su ma la tegalee ndox mi seetal la mbaa pettaaw yi mën naa la wax la dëkk bi ngay fajoo saa yu ma la mën ta faj man xam naa fi lay faj dama naa la demal Bambey wala demal Murtani mhm. wala demal Kees mhm. wala demal Podor ndax man mënuma laa faj fii moo la war a faj mhm. pettaaw joxuñu ko li mu moom saraxu pettaaw du def ñaari fan te li ngay aajo woo fajuwut sa place bu ñu la bindalee messapier seet gi la demal nga saraxe bu subaa directeur bi ne la dama juum moomoo messapier bi seet bu ñu la nee dugal nga say kayit war a dem Europe ñu ne kayit yi boobu ba léegi jotoogoo ci war da ngaa renouveler say kayit kenn toogu la seet mën naa la wax ban sarax ngay def bu subaa ñu wala jox la say kayit say message ñëw ku xamul seet yaa koy fawe am na ñoo xam dañuy duute mbaaye seet kenn du ko duute mbaaye seet boo ne jàkk ki ngay seetal nga doom yi bëti bëti seetkat donn ko mu doon sa don bu ma la nee jàkk booy dugg ci néeg bi bu ma lay entrer su ma la niitee wax la liy métti ci yow fii xasan sax dama la koy gis naa tamit nag ah, ay ah, mag yaay ak doom dugg si nga ne yaay yi looy bañ sa doom ji xamal la ko wax mu génn ndax lii lépp lay leeral. seet dafa ànd ak sutura. dégg ñaa ñu bokk ndey ak baay leen a teg di leen seetal ndax mën naa ñëw ci yow yaakaar ne yow daa am fooy yam te seet mën naa osé ba wax la fi nga jaar sa vie lépp. man gis naa nit seet loolu la nga ne ko da ngay baane da ngay mooy yàlla. non dégg man dañ lay tooñ sax nga ñëw ma seetal la man la yow mi da yor yi fi guddi. génn nga dem saraxe nangam. fa nga jàppoon ak fa nga jóge woon démb ak fa nga dellu woon yow rab yi daa laxasu ci yow di génne loo xam ne jaaduwul ci yow ak sa làmmiñ wi loo wax yow kaay signal sa sàkkar yàlla bi ma xool booy dugg si ma ne la da ngaa am sàkkar yàlla mm-hmm. bu dee da ngaa am bët boo xam ne dafa am lu mel ni per mm-hmm. dama naa la sa peru bët bi tekki sa verre bi nga woon sa peru bët bi boo ñëwee am om boo band ci suuf dama naa la tekki sa omu band bi mm-hmm. bu dee da taab ci sa ginnaaw ñu taf ci dama naa la sa taf boobu dey tekki ko man boo yegsee sama néeg ni caax oto sax su ma ci duggee su ma la jàngee seetal la sa loxo lii ma lay wax soo ko bëggoon sa lii ubbi ligne baa nga teg téléphone. dégg man maay dem télé ne ubbi leen ligne yi kenn du ubbi ligne man maay ubbi lu ligne yi. ah man man ubbi ligne laay def parce que liggéey boo ci liggéey war nga am firnde boo xam ni. yow da ngay assurancer sa bopp mais liggéey boo ci demee ba am moytu ak làqatu ak côté booy jaar ak boo dul jaar li ngay nekk nekkoo ca. dégg dégg seet. am na ñoo xam bu nuy ñëw ci seetkat bi il faut ñu saraxe. am na rawaan yoo xam ne duñu la bàyyi nga ñëw ci soxna Aida da ngay bëgg soxna Aida ñëw ci soxna Aida jël moo soxna Aida da an dégg te du tax nga ñëw ci soxna Aida saa yoo jëlee say dàll ba teg sa buntu kër nga am lu la wàññi nga duggaat fii war a ñëw moo fi indi nit de boo wartu te gis nga ni muy mel mhm. du gis nga ni muy mel dégg man aw ma temps mhm. aw ma temps lu tax loolu man kilifa yi Radisson fépp lan may woo ci àdduna bi ñaar nag laa dul wax fan nga nekk ma wax la fi ma ne ndax ki soxla ki ma woo privé la ki ma séqal privé la ki ma war a jëflanteel privé la yoonu kenn nekku ci seet da ngay am sutura doo dugg ci famille jàmbur doo dugg ci yoonu jàmbur waaye di nga wax koo xam ne ku ñëw ci yow nga wax ko loo xam ne moom liggéey mën nga dem ba sa yaay amoon liggéey wala sarax bu mu génn woon ngir doomi jàmbur sarax bi wëlbati ko ci sa kaw ci nga yàqule. waaye boo seeti jee soxna Ayda bu la nee fii ngay jaar yow c'est fini ca loola. seet li mu tilimal dañ koy laso. seet daa weex soo mu weex la waaye ba ca loxo ya bare la ñuul. benn temps. déedéet. coup d'état ki xam sa temps. gis nga fi mu ne nii bari na fi jabari président yoo xam ne. Mhm. bolok maa ngi leen di bëgg a rey. ngelawal moo sonal seen i borom kër. Eh, am na fi kilifa yoo xam ne tey. Mhm. ngelawal mooy bëgg a toj seen biir kër ndax lu ñu leen sànni la dañoo boole seeni tur ak seen i jabar def ko ci liggéey bi def ko ci jam ñaajo liggéey boobu fi mu nekk nii mooy commencé di leen jàpp seen biiru jabar yi am bolotement ñuy def ngelawal du ma tudd turu kenn nag te mënoon naa laa tuddali tur de waaye du sama yëf ndax du ma tudd tur ndax nit day am su tura waaye kon ma wax la fii dëkk bi li koy lakk mbaa xam nga ne dëkk bi mu ngi doon ci laxasu gerte caaf bu yàggee ñu ko boxam ko réew mi ñëpp am ñii xëccoo nguur gi. Mm-hmm. ñu ngi ci ay jafe-jafe yoo xamante ne ni fi ne kenn ku ne tiit nga. dina am ñaar ñoo xam dañ leen di tëj. Mm-hmm. ñaari nit. ñaari nit. ay ñoo xam ni danañ dinañ leen tëj dinañu laal kaso. Ah, ay dégg li ma xam. ah. allah akbar. <laughs> bëgguma wax dégg. su ma waxee réew mu toj. dégg li ma gis. li ma gis ki daan gis dem leen vaar mooy wax li ma gis. oh dégg nañ dem ci leneen nañ dem ci leneen loolu duma ci wax. c'est grave ça mais mbokk yi tey euh, émission bi teel naa yëngatu soxna ayda euh, yi dugg ci moom euh, di ko bruit bruitéti na ko li ma gis nii xam naa fa mu jëm dana doy waar ndax soxna Aida nee gis na ñaari nit ñoo xamante ni danañ leen tëj. te mbokk kii lépp lu mu wax ci seet nag jàppal du waxantu damay dugg ak yow ci góor ñi amati naa ngërëm. amatina ak cant jëm ci yow kii mi ngi tudd Babacar Sall nee na ma ginnaaw yàlla. dégg bul waaw dëgg la. bul waxtu. waaye ab yóbbante la boo xamante nee na ma. waaye nee ma rek. sa waaja kon nee na ma. ndax ñëpp samay nee na ma nee na ma euh, mi ngi lay sant di la gërëm ginnaaw yàlla. jabaram demoon na ba tàgg ko ne ko weer wii di ñëw boo fajuwul man damay ñaan baat nee na ma bi mu jëlee sa produit ba jëfandikoo ko jabar ja ci boppam moo ko ne da bees taq taq taq taq. yaa ngi may fàttali sama 18 ans Soxna Aïdara lan moo nekk sa affaire kàttan bi ba tax na nit ñi di ko coow. dégg li ma yor man samay bagaas si bopp du bagage si gone. du su suñuy fawe du bagage suñuy def fii laa koy jaay sama biir kër dégg amul nëbatu soxna Aïda amul sécurité barrage noo dugg soxna Aïda laay seet mu ne la maa ngi fi ma jëm ragalu ma ci dégg man damay doxantu dégg man damay def samay démarches dégg man liggéey bi yàqaluma lenn gis ni képp koo xam ne yaa ngi taxaw tëj sa buntu kër ñaar amagul jot ak mënagoo koo gis nekkul ci lu jub. dégg ah. su ma amoon kuy ñëw léegi am naa droit ne bàyyil buntu mu ñëw ma taala ko loxo ni ko toogal maa ngi ñëw mu toog xaar ma kon yow amoo gàddu ko non non bi ma am su may dem samay privé ndax yenn saa yi damay génn xale yi dar song ma. song gi soxna Ayda soxna Ayda soxna Ayda ji non soxna yow tamit dégg xam nga ki ngay waxal. king dégg yow tamit xam nga ma may king. Ah. la reine de vaillante. ajaratu bi. Ah. yow tamit dégg. ña dem màkk yëngal ma yëngal ma naa su ma demee gis yonent bi damay gën a damay damay jëf-jëf yi. ba nga jàkkaarloog Moussa Faye loo yëg. waaye xanaa xooloo ma. dégg looy nit ci man. maa ngi gis nga yaa ngi tàkk ba yàqu. vaar yi verte nga def verte. bari dañ may laaj ndax da nga puudaru su ma ñuulee rafet su ma leeree rafet nu ne nag laay mel. vidéo yi ngeen di seetaan du chaque jour Soxna ngeen di gis. kon noir ébène du ay caaxaan. non so Soxna Aida noir Nescafé noir chocolat. Nestlé noir Nestlé. noir lépp ngay gis ci moom mais noir café Touba bi tey laa leen indil. kon américain baa ngi soog a ñëw. waaw parce que réew mu ne laay wàcc te réew ma boobu day nekk ci man laa waaw maa ngi nag euh, ku may laaj maa ngi waaye dégg. réew mi danoo am lu baax. muy danoo am soxna Aida Saliou. la reine de vaillante ajaratu la reine de vaillante soxna Aida ngay yóbbu vaar. teg ko A ba Z amul reculer teg ma ci taabal ji. lii ku ko mën dafa am nooy doxee. gis nga mbel-mbel du coow sama vidéo du ma ko vidéo du ci tudd benn doomu aadama bu ma bokkal liggéey non su ma ko daan def sa nekkatuma ca la parce que ni ma toll la ñëpp dañ may xaar dégg munoo def sa vidéo di gaarawaale wala def del kooku mënul dante da nga gis ne dañ la gaaruwaale non man xam nga gaaruwaale ma ci lu baax rek na boo demee vaar da ngay tëjaat say vidéo man loo ma yóbbu gars yi dem vaar gars yi bala nuy setaan sama émission non yow mi xëccoo nguur gi bala ngaa xam kii falee ka folli demal vaar ginnaaw yàlla ak yonent bi soxna Aida fii génn sarax boo xam ne président tur laay cité diw mooy toog ah. diw day wàcc kan moo ko fii def ci mim réew koo fi wax mu naan koo xees ki ku xaw a ñuul ki mais seet bu la ko yàlla mayee jof la ko mu nekk ci sa deret nekk ci sa kaan nga tàmbali ko huit ans ci xoltu gerte booy wax dangay wax lu leer. yaa ma njëkk wax Macky day am deuxième mandat. déggoo ma di. deuxième mandat maa leen na bis bu Kandji joxee résultat yi deuxième tour maa la waxoon. Amadou Ba place am ci nguur gi day yaatu. maa la waxoon maa la waxoon euh, kii. nu mu li ma jaas bëgg na ma day toog. Bat Lamine Dia maa ni woon mairie yëpp dañ koy raxas mairie yëpp mairie yu bee sa fay man maa la waxoon gouvernement bi dañu koy raxas ay surprise yu doy waar mooy am assemblée nationale dem leen vaar. dem leen vaar. am na ko ma annoncé woon ne ma day faatu de waaye kooku jour bi mu wàccee laa tiit ci yow. dégg saa ma xëy de bëgguma di wax sax dégg. dégg naa bàyyi noonu dégg li ma war a wax ci réew mi. ak lii ma gis ci réew mi. dégg équipe nationale kan moo doon joxe bii loolu de moom. kan moo doon joxe score yi. yaa ko daan joxe équipe nationale ku doon joxe sarax yi ca kan ba yaa ko daan joxe ku ni woon bu kenn ray ca kan ba yaa ko daan woon dañuy jël coupe bi ca kan ba kan moo ni woon trois bi trois bi dina tegloo ca kan ba ku la ni woon salaan day dem nekk salaat ca kan ba waaye dem leen vaar waay kon ñu dellu ca ginnaaw ngeen xoolaat vidéo yi da ngay am connexion man boo may seetaan dëgg da ngay am connexion jël ci man temps xool vie bi xool àdduna bi xool samay vie dem leen imperot imperot na Aida boo koy seetaan da ngay am connexion bàyyi na di dugg ci heure taal yam ci rek jox sa xaalis woo ko wóorul. da leen dem vaar. da leen dem vaar taal rek yam ci impérot génne na benn seetkat nga dugg yónnee sa xaalis non non yéen ci erreur. xool leen ma li ma wax xool leen ma man wow ma kenn. feesal naa waaye nag ñi bëgg ma dimbali leen. nanu ma woo. ne woon naa la su ma demee màkk ba ñëw. ba sama ñeen fukki guddi yi mat. ñi doon fo nañ arrêté de su ma génnul kenn du génn su ma génnee ñëpp na pay mat waaye na ñëpp lemaat seen i laaf. Ah. seen directeur ñëw na. fan yii classe yante dafa xew dafa mel ne parce que gis naa lu bëri classe ngaa ko belende mais Soxna ay da nga ma daam ñu la classe. Ah. coow loolu nag coow loolu moom it eh, toj na dëkk classe bi moom nañ ko te affaire rab bi moom ah. dootuma ci wax na xale yi dañ maa bëgg dégg xoolal bu ma génnee barki Dembo Ndiaye xoola xale yaa ngi tiktok xale yi am sama jot di tiktok di def di mu nekk mbégte parce que man lu ma def mbégte la. parce que nag man maay borom tout c'est possible. nay rafet. man taalibi Serigne Saliou bi la gaynde Serigne Saliou bi ku mën na nga def. ku mën ku amul jinne ku amul junni amooy jinne dégg defal sama bilan ci année bi. koor gi ak léegi. koor gi ak léegi defal samay bilan nga xool. dégg ci football bi laay ñëw ak yow. newoon naa la kaan bi na nationale maa tax mu tekkoon fi mu ne. Ah. am naa bari lu bari lu ma ci liggéey. Ah. ak samay ñooñ ak ñi yàlla dimbali am na lu ñu def ci équipe bi waaye ku nekk boo demee VAR xam ni soxna Aida am na lu mu ci def te loolu wër na àdduna wërngal képp ndax jour yaa ngi may teral dégg. waaw na ma sénégalais yi moytu. i waxu Gambie dama ne partout. partout ki toj fépp. Uh-huh. wax ci réew mi loo xam ne dara du ko dindi borom vaar yi nañu ma moytu man bu ma man kenn du ma classe nag ku ma classe ma dugg sa biir kër. Eh. n'importe heure mën naa faa dugg def fa njombe. bit bu ci tegoo tous les moments mën naa dugg sa kër te su may dugg dooma ma yëg te su ma duggee def fa njombe nañu ma moytu. kii wax. moo judd woon ba avion ba daanoo. kii judd moom lañ waroon a tudd imaam bi teg ko daw. ki ñuy wax moo ñëw te ba mu ñëwee ci réew ba léegi ku fi am jàngoro biir tubay faj na la. ku fi am jàngoro yi ginnaaw faaj na la. ku am néeg bu amoon lënti lënti faj na la ñi doon crise faj naa leen ñi doon kayang kayang taxawal naa leen ñi nga xam ne réew mi dafa bari woon jëlti jëlti maa génnee sarax yi ki nga xam ne bu màggal gi ñëwee mu mën ci bu nu wootee julli géej gi mu mën ci bu nu wootee masaaliku mu mën ci gayndeeg sëriñ saaliw gi nan ko moytu damaa demoon ci yonent bi ba ñëw ñi ngi dëgmal gàmm nañ ma moytu sama moytu ma ne xam fa laa leen koy wax tey réew mi football a ngi ñëw moom la ndaw ñëpp di xaar waaw ñëpp de la ñu bëgg mais football bi na lu ci xew parce que suñu international bi Sadio Mané gis nañ ne fan yi ay bitam tax koo demee noonu gëj naa dugal gëj naa nekk ci forme match bi dëpp bi mu jógee euh, Liverpool Soxna Aida euh, tey euh, bëgg naa cadre boobu tamit nga wax ci côté boobu dégg tey la lan tey la lundi la Sadio Mané mbirum Sadio jàppal ma date bi dégg ah? suba suba voilà le 4 lay dégg Sadio Mané dana fu nit yaa ngi doog a jël gaynde tey le 4 sa euh, <laughs> dégg dama ni woon dinaa def ci réew mi mbir ndax tey sama yaram dafa tàng biig nelawuma biig li ma yëg ne woon naa dinaa def mbir ah. bu doon mbër day bëree tey ma def ci mbër suba luy xew suba ma ne bu doon mbër dafa war a am suba ma def ci mbir ah. damaa toll ci wane sama bopp kon wanewul rek bi kañ la suba ci mardi ji euh, Sadio Mané dana football ndax Bayern day day jouer suba ci ban heure la match bi man la 16 heures xaw ma 15 heures. non ay euh, wala ay 18 heures. heure yooyu ay 17 heures 15 heures ay 18 heures yooyu heure yooyu wala ay 16 heures. xam nga man équipe xool plateforme ah, yow Sadio Mané laa bëgg nga xool ko yow jëmmi Sadio Mané. ndax may wax équipe bi ba mu waree dajee ak Salaan. dama la ni tey Salaan salaat lay ne. kon faaw ñu pause ma bi muy dajeel ma xool ci internet bi. Sadio xamoo fa benn jour ci équipe booba. may ma une minute rek may ma coupé tuuti. xoolal ma ki muy dajeel. Euh, comme que euh, li ma gis ci plateforme bi mooy FC Victoria Plaine-Jeune mooy fubal ak na bu ko jaawal nag parce que Bayern la Sadio Mané di fubal Bayern ci boppam moom la Sadio Mané di fubal Victoria Plaine-Jeune moo war a daje. Villar Victoria Victoria. Plensen mooy équipe bi. Victoria. xanaa du du Victoria. Victoria Victoria bi rek laa ci soxla Victoria. waaw équipe Sadio ban la. Bayern lay fubal Bayern lay fubal. jàngut moo tax Bayern. ak Victoria. jeex na. luy ñoom dinañu raté. Victoria ñoom dinañu rate bii boo xam ne lu waroon dugg la mais dañ koy rate du dugg waaye saajo maane dina fa sànni bal boo xam ne buy dugg dina am duggin boo xam ne àdduna bi yëpp dinañ ci bàyyi xel ku mu fekkoon nga toog di nga tëb. Uh-huh. tey ngeen may jël ba faaw wala tey ngeen may mujjee jël ba faaw te di ngeen ma jël. score final kuy gagné. ma ne. kuy ma ne dégg. li ma la wax nii. bii bu rëy saajo Mané dina ko dëgg maa bett dama ne. waaye kuy ma rek. waaye Sadio Mané daal dina dugal suba. dama ne Sadio Mané dina dugal bii bu rëy. kon leer na dina dugal bii boo xam ne. équipe bi mu bokk. mbertal lay dikkee ci saajo maane tey ngeen xam ba faawu nag. dama ne suba suba. ñu expert jël leen loolu. man ticket bu may génn di ko rëdd. rëddal lii nga bind ko bu saajo maane dugalul bii suba bu ma jëlati. Euh, leer na naññ te am na solo mbokk yi kon ñoo ko gisandoo euh, li ci kanam rawati bët man nag gëm naa li ma wax ndax wax dëgg yàlla jamonoy euh, kan bi da jékki-jékki woo ma ne ma foo nekk ma ne ko maa ma mën ma génnal gaaw utal gerte nga sarax wala defal nii nii la match bi di demee mbokk yi kii ñaankat la wallahi dafa mën a seet dafa am lu ko yàlla may te lii yaakaar naa man mii nga xamante ni maa ngi dem ci sëriñ si tey bu ma jaaxee dama koy woo téléphone ne ko sonaay nangam mu ne ma nangam ji def ko nangam ji nangam nangam nangam kon borom xam-xam la dégg man bi may wàcc lii daa wàccaaleeg man billaay su ma yàlla laajoon sax duma ko ne def ma nii ndax lii euh, dégg ñi ngi xool liggéey boo xam yaakaar nañ ne ay pexe koy maye mais seddu lu ay pexe di maye de seddu da ngay gis nit rek gis soxna Aida Saliou ni ko nit ñi def ak réew mi fi nu ko teg nga yaakaar ne ay pexe ko may lii nañuy dem vaar nag ku réeral sa xaalis yaa ko réeral ndax du ñu luqutu vaar yërndu xool déglu waxi démb méngoo ko waxi tey ay at ci ginnaaw laa la wax nañ dem vaar seeti samay vidéo bu kenn ma samay vidéo nan teg samay vidéo te tegal ma sama vaar sénégalais yi bàyyil ma ko xel ñu xool samay wax li ci am importance réew mi bu eggsee ba fii bari na ci à cause de man te ma kenn sarax te kotew ma ay sarax internet bi temps en temps laa ciy dugg. boo xoolee sama pomade yi li mu def ci réew mi ñi daan jaay pomade bari na waaye kenn jaayatul. pomade fii la xewee sama kër laa koy jaayee. ana pomade lan man maa am garab goo xam ne. yow mi yoroon gémmañ guy xeeñ. ngay ubale te tegoo ko sa bopp. te naqari na la. ngay jigéen ak koo mënti doon. nga xam ne sa yeb bi sax day am socc. ñu lay gaara morom morom bu la bëggee gaaruwaale wax ak yow day sinab yor socc di la ko kali waaw maa yor garab gi boo ko naanee mu raxas sa biir li daan génne ci sa biir di gilli di nëb di yàq sa biti mu faj ko muy góor muy jigéen ah. yow mi yor tànk yuy bul mhm. di tooy dàll boo sol mu xeeñ maraakis noo ko te da ngaa silwiise te yàllaa la ko teg muy feebar ah. soo gisee soxnaay da tàqalikoo nga ak moom hémorroïde prostate ndigg luy metti fatiguement général hémorroïde muy génn ak buy dugg picc bi nekk ci biir dala jàmm dala def mettitu biir muy màtt sawet yi digg ginnaaw guy metti jàpp yàqu digg ginnaaw di ko màtt boo nooyee mu metti boo tëddee mu metti boo gisee soxna Aida Saliou mu faj la yow mi nga xam ne guddi da ngay tuur ndox lu bari. doo reer boo reeree sonn boo reerul sonn gisal soxnaay da nga tàqalikoogu moom yow mi sa maniiru dem ba jeex mu wóor na ni da ngay xëccoo xëccoo xëccu ba sonn pour bëgg a ànd ak sa soxna mën a too koo am boo gisee soxna ay da yow pare nga ci jàngoro jooju ñaari butéel la lay jox yow mi nga xam ni da nga am oom yu metti munoo toog munoo dawal say suufu tànk di xasan ndoxum siti di la ko def te du feeñ sa bopp bi di karaas ngay woqatu wala ngay dugal sa loxo sa tubéy di wokk sa bopp di déranger sa bopp mm-hmm. boo gisee soxna da tàqalikoog moom awra bu doon 7 mm-hmm. centimètres dama ko yóbbu 46 centimètres damay yokku lëngër nger yokkutaay te ku weddi ña ñamoon daaw audio yaa ngi fi lépp a ngi fi te am na ñoo xam ne dama damaa am sutura nag ndax lii dal na ko mu neex dal na ko mu neexul am na koo xam ci ndawam la ko dal te tey jii rus naa wax yaayam rus naa wax soxna te mun ta takk ay sëyam a ngi tas te dara tasu ko nag du rab du saytaane seytaane biir tubéy la soxna yaram na gàllaaja sama pomade yi jigéen joo xam da nga ne cadre rek di jeex ba nga nekkee gone ba nëgëni munoo sentir yaram amul fuy tooy ci yow boo ma gisee boo ma la raatalee sa yaram wii nga yëg ci sa bopp sedd baa ngi ñëw nag tële dafa bari boo ma wooyee ma yónnee la ko ci GP bi boo ko jël see sama biir kër laa koy jaaye ndax luy lamb la ñuy stocké ci boutique man stocké wu ma sama biir kër laa koy jaaye bu jeexee jeex na. vente chez barke Serigne Touba taalibe Serigne Saliou bay liggéey nag. Mhm. ajaratu bi. waaw ah, waaw yaayu baa ngi. ana sama doom mi ngi fii ñaanal leen ma ko jàmm na ma ko Sénégal yëpp ñaanal bu ñëpp laa bëgg nag. waali man Sénégal yëpp ma bëgg ma bëgg Sénégal yëpp. Mhm. mais waali c'est moom fils préféré. c'est mon fils individuel. c'est mon fils wan ma yenent bi. waale la yóbbu mag. waale ma wan Seydunaa Muhammad lu sama ndey gisu sama baay gisu ko. waalee ma wan kaabatallaay jox ma paas jox ma yóbbal daggal ma dofis yóbbu ma hôtel bu baax yóbbu ma foo xam ne lim ma wan ay waaye kenn dootuma ko wanati ci àdduna wala ku ma ko wan danga maa yóbbuwaat waaye waalee ma njëkk yóbbu wan ma Seyduna Muhammad bi ma njëkkee gis Abdallah da nga foto foofu ñu dugal bopp bi ne ma fii damaa xool bët dégg bàyyi waaye bul yàq émission bi mais fi ñuy dugal ba ba foofu garaaw na ci ma waali wan. waali yàlla bu ko yàlla wan dara lu tilim wala lu ñaaw. waali yàlla na ma ko yàlla sàmmal. waali yàlla na ma ko yàlla aaral. amal ma yaayam aaral ma njabootu biiram ak njabootu biteem ndax staff sax ci njaboot la bokk. waali yàlla na ko yàlla sàmm. soo leen dégg naa am na kuy saraxeloo nit ñi euh, naan la douche publique ngay saraxe douche publique douche la ko nit di saraxe dégg naa am na sëriñ bu koy def. ku ko woo mu loolu koy saraxeloo ko gerte caaf mbaa tika dege sax pour li dawloo biir moo gën sa douche nuñ koy saraxeloon. douche publique. léegi kooku bu dee ciment bokkul ci saraxam nag wala béton bokkul ci saraxam nag. donc da ngay gas douche. gas douche. waaw mun naam tamit dafa am problème mu douche këram rek ndax lu ne mën naa am. am ñoo xam fi ne dañuy tabax ba pare waaye problème duus douche am. Mhm. na ko jëndal boppam rek saraxe douche yu ñuy wékki. mu teg ko ci mbedd mi. sarax bu ne mën naa am de waaye leen daal xam naa la ko moom mhm. Euh, yàquma liggéeyu kenn tilimalu ma kenn nag. Mm-hmm. waaye soxna da daal moom boppam la wax. Mm-hmm. ña ko ñamoon daaw. Mm-hmm. fàtteetunu soxna Aida ba mukk waaye nag. Euh, yal na yàlla suturaal waaye daal nañu musóor bopp yi delloowaat ci yàlla soxna Aida dey ay jamono benn vidéo la ma sa am bu mu def ay njañ te boobu réew mee tàng ma bi may def sax sama musóor dafa felu ci àdduna waaye des sama dund gi musóor du tegee ko ci sama bopp te dinaa war mal sama bopp ndax la ngay def ba nit ñi di la gëm bokkut ci ñàkk musóoru bokkut ci yenn yi ndax soxna yi dañu ko bëgg bëgg nañ ko ba noppi keneen ku ñuy bëgg sénégalais kenn mënu leen a nax nag mbaa xam nga ni sénégalais moo neexut a convaincre loo ko convaincre su du dëgg man su ma la nee jàkk sooy wax ak man su xoolee sëy moo rek damay xam ne waxoo dëgg te yàkkamtee wërsëg wala yàkkamtee taali bu la taxee wax loo warut a wax bu déwénee dootoo ko defaat ci beneen facette ngay génn soxna yi tous les temps rek c'est la modèle individuel damaa jàngul nag di ngeen ma comprendre waaye man yaayu xale yi man rakku mag ñi man jarbaatu mag ñi maa ngi leen di ñaanal yal sëñ Saliou defar réew mi te gi na ñëpp gàmm ci li ma leen wax nag ci biir dem maane bi na ci ñëpp bàyyi xel suba bu fekkee ne Sadio Mané suba la kaat doorut dugalul bii maa ngi leen di laaj ne leen bu benn interview ñëw ci man jël si ci kaan bi coupe du monde gàmm gi fooy làng man gàmm gi damay dem Tiwaawan damay dem Kaolack damay dem fu gàmmam damay dem jàmmalaay yoof fépp laay wër ndax gàmm gi gàmmuk Seydunaa Muhammad la gi sëñ Bàmba moom mu yëfi seexul xaddim ku ne ñëpp laay wër ndax fépp laa ami mbokk dama am doom tuddee sëriñ Babacar Si moo topp ci samam sëriñ Saaliw ma am ko nag ci ndimbalu Serigne saaliw damaa gént bu tëdd ba guddi gént sama waaja lam ma woon ndax ci wan ma la dëkk waaye lam ma woon ba ma ko jëli jee ci la am Seydouna Mouhamed kon man awma lu ma fayee Serigne Saliou waaye daal tarxiya yii yal na leen yàlla def rek ñu nekk benn nàq bokk ndey bokk baay ndax ñun ay jullit lañu te amuñu lu dul mag ñu baax ñi gàmmu gi nag gàmmug yonent bi la ñëpp génn soxnaay de fépp lay lànge soxnaay de fépp lay lànge ndax burdu yëpp laa lànge te damaa burdu burdu mooy safar rek. verte bi de moom burdu lay fundeel. non verte bi verte bi yonent bi la de. Ah. yonent bee moom verte. Ah, verte c'est le couleur de l'islam. Seydina mm, mm, mm. looy wax askan wi lay suivre ci MPROD TV. waaw di ñaanal ñëpp yàlla rek di wax ne. ku ci xool ci Aziz Ndiaye lii mu def def ko màggal def ko tiwaawan ci nag yi mu jiital nga xam ne lépp benn la ku xool ni ni tarxiyee yee demee xool laaye ni boo duggee di nga fa fekk sëñ Mbàkke laay di nga fa fekk soxna jaara buso xam ne lépp benn la kon yàlla nañ yàlla may gudd fan oto daw ndànk fu waay di gàmmoo ci àdduna ñu dem jàmm ñëw jàmm bu ndog ndog am bu gàllankoor am bu tëlti tëlti am bu faqas faqas am ci barke yonent yàlla Muhammad di wax ne sénégalais yi ku mën defal ku mënul bàyyi la ñi moom affaire bi ñu ne ca dégg ngeen. du tee nga am sa wërsëg kuy ñawi doon tëyër nga ñawi jaaykatu ngooñ dem jaayi ngooñ koo xam tamit da nga daan jaay dugub nga jaay dugub ko ne lu ne nga dekk ca rek yàlla baax na. seeri dellu ca port ba ay ca mbokk yi waxtaan wi am na njariñ te waxtaan wi am na euh, solo ñu doon ko seq ak grande voyante di soxna Aida mu Saaliw muy jigéen nag waaye di bañkat di ko xamante ni léppam da ko rek ci sunna ak euh, li nga xamante ni moom la yonent bi bëgg muy jigéen gu sell di jigéen goo xamante ni tey wàllum lii di seet marqué na ci empreinte ba damay wax naan takk na ci sax capitaine soxna Aida mu Sëriñ Saaliw la grande voyante femme batant la kii li ko yàlla may ci xam-xam yaakaar naa Sénégal yëpp xam nañu ko numéro yaa ngi noonu affiché képp ku ko ci woo rek di nga ko jot mbokk yi doon topp di ñu suivre ci MPROD TV yàlla ngeen bëri jàmm ci dara jëy Muhammad Rasulullah